maam bu so jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam maaram Abdoulaye Niane euh, taalibe Serigne Touba dama ñëwoon tey ziar si soxna jaara ah, naka nga gisee euh, dëkk bi ak soxna jaara liggéey bi mu liggéey ci ans tey ji euh, mel ne dund na ans waaw xam nga loolu euh, dafay lu doy waar xam nga tey conférence bi affaire u réseaux sociaux lañ doon wax sànq bi ma toogee di ko déglu rek dama dugal euh, benn message réseaux sociaux di wax euh, Soxna Diarra dund boobu mu dund effectivement ci at yu gàtt wante lumière bi mu nekkoon ba léegi mi ngi mi ngi feeñ te jàpp naa ne ay ay ay siècle ci kanam itam dina feeñ moo tax nga xam ne àdduna def lu rafet rek mu am solo moom dafa nekk koo xamante ne nii yaay la ñëpp xam nañ ne doomam raw na doomu euh, yaay yu bëri xam nañ ne aussi ku liggéeyal diine la ndax euh, ku wattu woon alxuraan la ku ko fonkoon la tey gis nga jigéen ñi fiy jàng alxuraan exemple boobu donc dafa ko suivre dëkk bi itam benn village bu ndaw la woon gis nga tey ça commence mi ngi commencé nekk dëkk bu yaatu euh, daf lay daf may fàttali sax man Touba ndax man Touba laa juddoo foofu laa yaroo Euh, bi may nekk xale yàggul noonu wante booba dëkk ba daanaka dangay xëy dox tuuti rek mu jeex tey bari na quartier yu ma xamul Touba donc jàpp naa ne Porokhane boo ko xoolee ni muy màggee dina dem ba nekk dëkk bu rëy donc loolu mooy wane jëfu doomu aadama ni mu mën a yaatoo su fekkee ne ci ngëm la ko teg. crise des valeur moom euh, am na effectivement kenn du ko kenn du ko weddi mais nag lu yàgg ci jamono la euh, daanaka boo xoolee histoire toujours lu bon ak lu baax dañuy dañuy dañuy dañuy teewandoo mais nag chaque jour boo xoolee rek ñi nga xam ne exemple lañ ku mel ne Soxna Jaara Serigne Touba nga xool itam jigéen ñu baax ñi jaar Sénégal crise des valeurs boobu dinga am ay jumtuwaay pour man ko xeex donc jàpp naa ne jigéen ñi. Euh, soxna jaara valeur la ci ñoom exemple la ci ñoom man boo gisee tey ma ñëw euh, taalibe murid laa gaa wante nag dama xam ne exemple la aussi ci jigéen ñi exemple la sama doom exemple la sama soxna exemple la sama yaay donc loolu dañ ko war a rafetal dañ ko war a magnifier li tubaab yi wax moo tax ma teew fii tey. waaw mooy li ma la wax rek c'est-à-dire que société bu amul ay valeur amul ay référence du dem. te Sénégal dañoo manqué référence tey moo tax lii jarul ñu koy xeeb man jàpp naa ne état bi sax def ci waroon a dugal loxoom gën koo yëkkati gën koo fësal ba crise des valeurs bi ñuy wax lii nekk contre exemple maanaam mën a gérer crise des valeurs boobu euh, nekk donc un exemple la société donc maam jaara wax dëgg yàlla euh, dafa nekk loo xamante ni chance la ci ñun Sénégal exemple la ci ñun wane na ne euh, jigéen boo xamante ni ay atam mën naa am néew na ci Zaïre wante ci baatin euh, mën na résister ba actuellement booy wax Sénégal tudd Maam Jaara dangay jàpp ne euh, mën na am li mu liggéey euh, ay juróom-ñett futti at da ko def wala même téeméeri at alors que bi mu koy def boo xoolee yow mii sax daanaka peut-être am nga at yooyu waa xam naa ne xale nga mën naa am mais damay jox rek misaal ne booy xool xale yi tey am jigéen ñi am tey 33 ans ñi ngi tal leneen di defaru di dem ak a ñëw euh, alors que moom boobu fekk na mu pare àddunaam yëpp ba wuy ji boroomam sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mam